الحمد لله الحمد لله الحمد لله ساكيو يا yaakaar waa Louga xam nañ leen lool liñ fi indi nag mooy luñ mën a jàppale téeméeri famille yoo xam ni kër gu nekk dinañ la jox loo xam ni lum néew néew nga mën cee dem ay semaine boo ci mënta demit weer lii nga xam ni lii def nañ ko fii tey defalu leen ko seen bopp rek waaye defal ngeen ko ministère de la santé et de l'action sociale ndax le ministère de la santé et de l'action sociale euh, ak ki les euh, autorités yi sont fii la ci kon vous êtes des partenaires privilégiés et particuliers Li itam buñ koy def dans la transparence Nous ci jot ñépp soxla kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que sama xol dafa se toy en général tu melni nii ko ndax ñi def demande yi di ko indi ci services sociaux yi su nous ni du won yeen ONG yi ñu jàppale kon duñ dem fenn. handicapé yalla xam na ne jëluñu ñëpp ndax yaakaar Matar ko yewon gudi ne ko dama bëggon nga tanal ma handicapé jarul muy dem di ubi base donné bu talé autom day dem ndax xam nañu. xam na fi ñu dëkk xam na ñu ko gën a yellool. man sama wax dafay gën a jëm ci askanu Sénégal euh, di wax ne ñun dañoo am objectif ren ji def deux mille familles ñu dimbali leen bu ñu xoolee tey ji nii en tout cas ci li ñuy jot fii ci biir réew mi ci ay cotisation mu néew lool wuuteeg li nga xamante ni dëgg-dëgg ñeneen ñoo xamante ni xamuñu sax boo deful nang fan la carte Sénégal féete di def dañu japp ne ñun dëkk bi dañuy woté wo dëkku teranga bu fi gan ñëwoon dañ koy téral tey nak am nañ gën gi gëna mag ci gan yi moy Ramadan ñi nga xamanté ni yalla def na seen loxo jotul seen ginnaw ñi dimbali leen lu ci melni ni Nous sommes à la périphérie de la ville de Louga où nous avons parcouru plusieurs maisons pour distribuer vos kits. Et subhanallah, en fait, à un moment donné, on est tellement touché que la peur, c'est de ne plus être touché par des situations qui sont des urgences absolues en fait. Nous venons de quitter une veuve qui est aveugle et qui a sept enfants à charge. Et voici que nous rentrons dans cette maison qui est celle d'un de nos frères qui est converti à l'islam, qui vit ici avec sa famille, ses enfants. Et on le voit malade depuis longtemps, il ne peut pas aller travailler. Des cas comme ça, il y en a énormément. Maintenant, nous ne pouvons que vous rendre compte pour qu'ensemble nous puissions essayer de faire le maximum. C'est une œuvre collective qui peut régler ces problèmes-là. Ce ne sont pas des problèmes qu'un petit groupe de gens peut régler. Chacun doit donner à la hauteur de ses moyens et ensemble, Inch'Allah, nous irons, loin par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes très, contents de votre action. C'est une bonne chose.